lay wax ci intervention euh, honorable député euh, Mame Diarra Fam c'est vrai que décontraction positive dañ ko soxla fii réew mi toll te loolu mooy particularité quartier général xam nga ab Cheikh mhm. Mame Diarra nit ku baax la mhm. parce que wolof Njaay nee na wax sa baaxu nawle mhm. du yàq ci sa baax dara te lii mu wax ni au nom des femmes xam naa ne lu wér la parce que moom nijaayam laa doon sëyal mooy sama jaami doom yee ci sama kër. Mhm. dama dem itali parce que chaque année. Italie mhm. dañ may invité. Mhm. dama dem Italie ko li tax mu ne may jooy. mu yegg si di wax ba sama yaram bi deg dégg yi lox may jooy. sama nijaay mënoon naa di bàyyi laa njaboot gu sew ruuci nga nekk ci la neex ba ñu échoué. ma di ko sant bu baax. ni ma bëggee Ablaye Wade noonu la ko bëggee. Mhm. ni ma bëggee it Karim Wade noonu ko bëggee. constance ak loyauté. képp moo sonal. constance ak loyauté. loolu day inspiré ay génération sax mooy li képp wax sànq. kii di Macky nag Nafisatou di ko wax tout le temps. kii di Macky nag di ci di ma ci expliquer mhm. na seetaat boppam. Mhm. Ablaye Wade day bàyyam. ki la def ministre de l'intérieur nëbbu la réew mi. ki la def ministre de l'énergie bëgg na nga xam ki la yóbbu assemblée nationale ah bëgg na nga am baat ki la def chef du gouvernement te kat mas na dugg kaso ah 87 rek léegi Macky dugg fi kaso nag moom yëru sax buntu ba ah, yàlla tere du ma ko yéene lu bon waaye li fi ma li ma dund ak moom laa lay wax man mii ñam naa ah, ñamati waaw c'est-à-dire ba nuy opposé mhm. duggul kaso laa wax ah d'accord coono bi ngeen dañ moom waaw kañ 87 à 2008 toujours dama koy wax assemblée nationale il est pièce comptable ah, lañ tàggoo di assemblée nationale bañ ko gësamee ca la tàggoog nun di mos na coono bi mos na teraanga yi 2008 2000 2000 Abdoulaye Wade ba 2008 Macky nga ànd ak ñun kon xam na ne Abdoulaye Wade day bàyyam Abdoulaye Wade itam mu ko teg ak li mu ko won wax dëgg yàlla moo ko won nag yoon mu mën a doone président de la république te yàlla ànd ci. très bien honorable léegi ci beneen wàll am na ñu bàyyi Wade dem feneen mais am na ñoo xam ne Wade leen faxas xas comme maître Madické Niang. Eh, yow nag. yow na dagg maa bëgg a dugal. damay laaj rek honorable <laughs> wadd moo fa xas ma dikk. ci fee yi. ah tojal ma fee yi ma xam ko. no man damay laaj. ah man xam fee boo ma nee fee. wala ku ne xam na ne àndub Abdoulaye Wade ak maître. xaar ma wax la tuuti bu aju woon ci ma dikkee ñaar rek ci ñun lu ñu xam. muy opinion publique bi ànd bi du dakk waaw xaaral Wade bind na fa lettre xas ko ba mu ràpp ginnaaw bi mu bindaatub lettre ne ko seytaane la. Wade ne bu kenn doon candidat maître ma dikkee ne xel xalaatu ay élection di am PDS parti bu ñu toll du ci am candidat moom mu samp ndëndam Abdoulaye Wade pare fa dogoo ak moom te ku ne xam na diggante Abdoulaye Wade ak maître ma dikkee ñaa ndekam ñun ñuy observé ñoo ci xam dara rawatina yéen ñi nga xam ne da ngeen koo jege kon li ñu mën a jàpp mooy ma dikkee bàyyil Wade wala Wade ko bàyyi. loolu mooy sa jugement. sama xalaat ban tribunal nga nekk président bi. Ah, li nga wax kañ laa joxe laaj la égal yow daa mel ne yow yaa ngi au milieu des affaires xam nga ma dikkee bëgguma cee wax. ndax Ablaye Wade tax ma xam ko mais damaa kóllëranteeg yaayam ci ca barsàq yan na xippee àjjanay firdawsi. amiin amiin bi ñuy jàpp nit ñi bi ma ki yegg see rek accélérer la cadence ànd ak sama mimi sama jabar accélérer la cadence vers les prisons yaayam saa yu jullee ca ndar. daf may woo yàlla na nga mucc yaag ma di keña maa ngi ñaan ci sëriñ Touba yaag sa càmmiñ li yàlla buñ leen jàpp ma seq ak moom loolu ba yàlla def yaay nelaw man de benn tàggoo neexu ma su ma la waxee dëgg ànd boo gis tàggoo neexu ma fadaa bu fi nekkoon xam nga ne fadaa dellu gannaaw de ministre plein ñu def la DG nga sol sa mbaxane foog na yaa ci ne. premier ministre. chef du gouvernement ñu def la yaa nga foog na yaa ci ne. Souleymane waaw du jeex di. Mhm. ñoom rek la àgg sax kuñ fi tudd di. tudduñ fi kenn mag yaa am man nag fax naa ko sama càmmiñ loolu fax naa ko. <laughs> donc moom ku ma sa fontoo <laughs> Ablaye Wade rek. ci bong bong yi teg na la teg na la ci sa ànd. bi ma gisee Fada mu sol sa kii bi ma ne waa xanaa kii du Fada. casquette kii bi casquette bi. Mhm. ministre plein de la santé. ñu def la DG nga foog na yaa ni xam naa sax sama wax jee tax ñu di leen mosal ndànk na <laughs> li ma ne ay si je savais hmm. xam nga def naa ci émission Sen TV si je savais oh ça n'allait pas passer comme ça looloo tax yow yow leen daal comp dañ leen a war a ñoo ñu Ablaye laa da leen a defal lu ne ci réew mi teg leen fu ne jox leen lu ne fóot leen paase leen ba àddina yépp naw leen kon fu ñu daw dem rek buñ demee war xam nga président lan moo lan moo lan mooy baaxam nee na boo jógee ci parti ñëw ci sama parti su la ma la mënta jox lu toll ne la nga yoroon it su lu ëpp loolu danaa la jox la nga tollool la nga amoon fële kenn du la reetaan man de maa ngi socc ñëwuma leen léegi da ngeen bëgg Karim doon président. oui Amin ku ne xam na ne fi ma dikkee féete woon bàyyi Karim bu fa féetee Karim gën rek lay doon est-ce que yow en tant que ni nga mel ci wàdd noppi nga pour ma dikkee dellu si ci yéen. waaw loolu man maa koy décider. dama laa laaj Ablaye Wade ak ma dikk ba nu àndee ñaari avocat di plaidante. Mhm. booba ku tuuti laa. ci seen wet di sànni xeer daw di ñibbi loolu da koy laaj ma dikki baa nga laaj ko Ablaye soo ma bëggee xam laaj ma sama diggante ak président Wade kooku laa bëgg ak ku ko bëgg rek bëgg naa la mhm. li ci des moom non commente non commente non comment. <laughs> wax ji jeex Pape Djibril après may mën man man li ma koy laaj rek mooy avenir u parti démocratique sénégalais tey jii ci en terme de renouvellement ndax parti la boo xam dañuy faral di wax ne patrimoine du Sénégal la ndax premier parti d'opposition légalement constitué. en Afrique am taxawaay bu am solo depuis 1974 accompagner processus de démocratisation bu Sénégal ba ni mu ñëwee ci nguur gi tey jii nga gis mu mu ni ni parti bi di demee. c'est vrai que opposition dafa métti surtout boo nekkoon pouvoir mais tey. ban taxawaay ngeen am yéen en tant que senior parti bi dans ces différentes instances pour que PDS bañ fee jaar naax saay pour mu bañ a. Euh, soo ma laajee loolu ba pare. man dinaa la laaj avenir u mhm. <laughs> loolu mi ngi dépendre ci Birane Ndour tontu nañ la li nga ah. eggale. <laughs> kon nag loolu mu ngi dépendre ci Ablaye Wade. <laughs> léegi léegi léegi ah. non waaw léegi bu fekkee ne si bu fekkee ne si Ablaye war la dépendre léegi euh, ak xëy na mag moom. mag la rek. ba ci lan non en fait li ma bëgg a wax ah. mooy. Ah. non non li ma bëgg a wax mooy. ak gudd ba kan. li ma bëgg wax mooy. baay am na 104 ans. non non li ma bëgg a wax mooy. waaw waaw ba ma lay yëpp rek. non xam nga ku mag moom sa doole wàññeeku loolu la yàlla dogal. bu la téye nga xam ne góor dëgg la téye. dooleem wàññikul mu ngi nii sama. amee ah, kon c'est très bien. sama téléphone baa ngi mën naa la ko woon naagul réerul. jaar na xewul. Mhm. dara jotu ko. Mhm. macha allah yàlla am na lu jël sur lui. Mhm. waaye ku sëñ Fallou ñaanal. non ñun xam nga sëñ Saliou ñaanal la. sëñ Sidi Makhtar ñaanal la. sëñ Abdoulaat ñaanal la. sëñ Abdou Khadre ñaanal la. ak yeneen sëriñ yu baax yi ci réew mi. nga yor sa xol bu rafet yéene ñëpp jàmm. te am bokk ak nit léegi ñi nga xamante léegi ñi nga léegi ñi nga xamante ni ñoom ñooy mooy les seconds exécutifs mooy ñi nga xamante ni ñoom xëy na tey ji am nañ ndomb ci parti bi wala jox nañ leen responsabilité Euh, li ñuy xaar ci parti politique yëpp mooy une massification wala un renouvellement. Mhm. tey jii PDS fan la toll ci chantier yooyu. doo ma laaj bu PS fu ñu toll Khalifa nga fële nga laaj ma bu Moustapha Niass. Mhm. waaw par exemple Malick Gakou nga ne. waa ñoom ñëpp par exemple tey mais yéen. nga laaj ma fii nga ne. Mhm. kan moo war a remplacer Youssou. am ngeen de. mais yow PDS nga xam. fépp <laughs> yow yow dëggul. yow kat daa mel ne PDS nga xam yow itam. man mi nga xamee sama fa ma dëkk. Hmm. laa xam ne dafewu fii. xamante la rek. léegi très ay Aïcha Maïmouna. voilà euh, parce que sànq ba tey yaa ngi naan Ablaye Wade fi mu mu nekkal teral na la defaral na la que euh, boo demee fee est-ce que di nga am lim la daan defaral léegi nag ñu gis ni que ñu bëri aussi dañu naan. politique conviction la ay idée la donc mu ñuy ñuy prôné sax nit ñi di dem di ànd ak nit par rapport ak seen programme par rapport ak fi ñu bëgg a jëmale réew mi par rapport ak li ñu gëm donc yéen seen façon bi ngeen di defee politique est-ce que loolu moo ko lal ba pare après seen diggante ak Ablaye Wade doog si topp wala dangeen jiital yéen euh, le fait que ngeen bëgg maître Ablaye Wade ba fu mu leen diriger rek ngeen dem fa. waaw kilifa lu muy jëriñ yow sa doom jee nga yor ci soo ko nee toogal du toog soo ko nee noppil du noppi soo ko yónnee mu bañ kilifaam nga wala mooy sa kilifa ah waaw lii kër la di fenn fu nekk la raas jóg dikk topp toog fenn fu nekk la nit ñi jóge pël yaa ngi ci tukkuleer yaa ngi ci séeréer saa ngi ci bambado yaa ngi ci ñëpp a ngi ci biir raison de plus du kër kër du demee noonu. yow sa am sa kër mbokk la. honorable man amul am ku la gis xam nga bi xam nga am loo fay loo fay jànq. léegi xoolal <laughs> kilifa mooy yor dépense am lu ko neex mu dogal mais bu fekkee état nit ñi ñu seen xaalis ak bien commun lañ la jël jox la pour nga diriger donc waroo jël di ko gérer comme ni ngay gérer kër wala nga jiital ni sa kàddu la parce que li ñëpp bokk la. yow dangaa bëgg ma may la Karim waaye duma la ko may. <laughs> am na am na Karim am xoolal Mali <laughs>